Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci de way des merci de abonné, merci également Gaël de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager une information et un box sénégalais fait pour les maintenant 14 régions du Sénégal. À de nouveau ngeul kep ñu ngi leen di jaajeufal ñu nekk également ci l'hôpital ci kër tëdd feebar yalla suñu borom fëgg seen bopp ñu wër ak jàmm ñu nekk ci kasso yi nga xam ne aussi erreur judiciaire ak guignol ñu deful mo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen njaboot ñi déddu aduna suñu borom xale leen àjjana fi daw ci Gaël de yéexé ñu on avance ensemble dans la magie des eSport TV, l'actualité en continu Gaël actualité bi ñu fas waxtane waxtaanee Crépignon de retour Capitaine Diatta Dougal tay bi bu stratosphérique wax également ci sommet volcanique bi amoon diggante FC Barcelone ak Manchester United également ki nga xamné moy Nicolas Jackson plutôt Ismaël Jacobs gars Ismaël Jacobs ba également qui a participé aujourd'hui à la victoire de l'AS Monaco mais d'abord information gars dañu dañuy ki nga xam ne nag donc kii di Ngolo Kanté Ngolo Kanté gars N'ak. nag bala match retour Dortmund ak Chelsea dina fekk mu nekk de retour donc Ngolo Kanté le milieu de terrain récupérateur sera là donc pour jàppale mondjam Kalidou, akkor Koulibaly. Ki haben da Chancel Memba le joueur donc de Marseille Marseille il y a saa kontaan nañ ndax moom gars yi dañoo dañ koy suspendre ci match bi di Paris Saint-Germain avec Marseille Marseille ba léegi ma recevoir en championnat Paris Saint-Germain mais finalement dina fekkee match boobu noonu kii Chancel Memba l'émir du Qatar le propriétaire du Paris Saint-Germain il y na un na avalam ci li nga xam ne nag donc consortium qatari bi bëgg recruter wala boog bi a jënd plutôt gars yi li nga xam Manchester United parce que fait dafa yàgg sur Manchester et que il aime ce club loolu gars yi wax ki nga Mauricio Pochettino peut-être mon ne retouram du côté de Tottenham des sports de Tottenham mi nga xam ne actuellement Antonio Conte déjà moom gars yi dafa mel ni ba léegi prolongé gul en plus problème de santé Il mu commencé à commencer nag inquiété waa Tottenham bi nga xam dañu bëgg un entraîneur qui soit entièrement disponible pour cette équipe li nga xam ne nag donc lii di concours cyclisme bi ngeen di gis nii donc suñu gaynde yi ñoo nekk champion d'Afrique ah donc ñu leen di wax donc paracycliste yi ñu leen di wax donc félicitations encore une fois Sénégal encore sur le toit de l'Afrique ki nga xam ne mooy Sadio Kaiser magnifique maa mi ministre bi di Yankoba Diatara moo demoon seeti ko seeti xaritoo la wax dem seeti ki nga xam ne mooy donc Sadio Kaiser magnifique maa depuis ba mu blessé ba léegi dem nag Sadio Mané may ko mayo numéro 17 bi ne ko gars yi nag ah fii moom da ngay solu 10 waaye da ngay set wecc da ngay set wecc boo bëggee nekk suñu njiit comme le Sénégal bien entendu sommes là là yu 7 wecc ki nga xamné nak moy donc euh, ki également di yakou Badiatara. jox na li nga xamné nak moy donc euh, ab pour wax ko également gars les ñu ngi lay gëm sénégalais yow lañ gëm et sénégalais également dañu yag am gëm-gëm ci nga xam donc li di euh, nationalisme mais également comme on dit liberté le Sénégal donc pays de la teranga sommet volcanique entre FC Barcelone ak Manchester United 2-2 hein. ñi nga xamné nak moy donc wa FC Barcelone ak Manchester United match bu neex match bi gaay yi c'est nuroo na match Ligue des Champions ki nga xamné également mooy euh, Alonso Modadi Dougal Dougal hommage papa bi nga pour FC Barcelone mon Dougal un but donc qui dit Marcos Alonso mais également qui a Marcus Rashford histoire de M parce que Marcos Modougal Dougal Marcus daal but également de la légalisation plutôt pour qui donc l'anglais bi actuellement il est en très bonne forme moi mi nga aussi mo provoqué erreur bi indi bi Jules Koundé contre son camp puis nga Marcus Rashford mais aussi penalty yi bi amul en tout cas ki nga xamné nak moy mooy donc kii di Eric Ten Eric Ten Hag néna mom dañu waron siffler li nga xamné moy mooy donc penalty bi mais aussi le sauveur du FC Barcelone se nomme Rafinha Rafinha il a été raffiné pour marquer le but de l'égalisation du FC Barcelone benn moment tamit génne nañ ko mu daal di li nga xam bon bi mu tok mais après djegul néna bo xolé li ni mel maa ngi jégul si Xavi di djegul également ci Ferran parce que bobu dama won envie égaler match bi ndax bëggoon FC Barcelone daal gagné Eric Ten il y a na penalty bi waroon ko siffler de il y carton jaune. Tanha Gay bi nga xamné donc aujourd'hui encore mo wane na fi ne Manchester ñi ngi ben benn cour bo xamné ñi gën di yegg di gën évoluer et pendant ce temps également li aussi penalty la bu wa Barça di laaj loxo bi loxo bi ngeen di gis ni gay également damay bay ah du ci wax parce que boo dee penalty la ñu ne bii tamit penalty donc gay à vous de juger en tout cas match bi tay ñaari penalty amna ci bon la ñak ñaari erreur yo xamné ne gars yi jàpp penalty la woon mais aussi ki nga xamné également moy donc gis ngeen Fred Fred mom tay mom gay Gavi dal xamul tax Gavi Gavi mom gay chaque fois il faut ñu jéem am photo bo xam day xëc yëre jàmbur li di Fred nak, Fred mi non qui di Fred mom li la daal di poster tay ci nga xam moy comptam pour wane également li nga xam moy Gavi limu mu di ki aussi di nak Javier Hernandez gars Hernandez depuis ba mu ñëwé du côté de FC Barcelone huit match coupe d'Europe yi mu joué au niveau du Camp Nou benn la ci gagné benn la ci gagné gars tolo nak également contre Victoria Pleasant le won et depuis bobu nga xam ne mooy donc ñii di Barça tout du côté de Camp Nou en euh, Coupe d'Europe Nidi di AS Monaco ñoo de fait Célendor, leen door leen loolu ñaar Bayer Leverkusen Dalekoidor, di deux buts donc trois à trois donc Monaco moi, trois buts Monaco bi également aujourd'hui ñoom fi classement avant ñu yi le nombre de buts marqués par les différentes équipes mi hein, euh, également résultat yi mi ngi aujourd'hui sur l'un des sauveurs de l'AS Monaco le Sénégalais créé Ronaldinho Crépin Diatta gars de retour waxon na leen ko boy bi dañ ko won may temps coupe du monde waruñu ko woon sacrifier mais mi ngi ci temps bi di ñëwaat nànk-nànk blessure bi mu jógee moom met waxon na leen ko psychologiquement day met physiquement day met mais Crépignon aujourd'hui bàyyi il a marqué un but venu d'ailleurs un but bo xamné ne Casamance la jógee jaar Dakar rombo Thiès romb également de qui gëna a Sénégal nuyu ñi nga xamné ñoy donc expatriés sénégalais yi nga xamné donc ñoo nekk si diaspora bi marchand ambulant yi dana xolé dem dugg ci caaxu ñi nga xamné moy donc Bayer que Leverkusen quel but de Crépin Diatta but bi dina bokk ci plus beau but yi nga xam am ci Europa League peut-être même hein, de la saison dans les compétitions européennes Crépin Diatta mais également Crépin Diatta aujourd'hui mi gëna gën gagné place am dans l'équipe de Philippe Clément bu len faté ni Philippe Clément moko yoron yoroon ba fa nga mooy donc ci Bruges ñëw indi ko fi nga xam ne fekk ko foog fi nga xam ne mooy donc ca euh, Monaco joxaat ko chance bi ne nak yow il faut que nga de dëggantaan li nga mais aussi on autre Sénégalais bi nga xam ci banc bi la démarré mais dugam aussi a été très décisif parce que même dans l'action de but il a été également décisif, donc donc qui dit Ismaël Jacobs, qui est toujours dans sa même lignée et dans sa même lancée que l'hymne qui Coupe du Monde, le joueur sénégalais arrière latéral gauche, depuis quelque temps, Clément Ban à la mais Saïd il est décisif, Ismaël Jacob. Guys, c'était les informations que je voulais vous donner, toujours un plaisir de vous servir. la, toujours le meilleur Sénégal, ben pour la un peuple, un but, une fois, liberté pour le Sénégal. Yag, yag. nguur day jeex waaye yàlla du